asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 9 juillet 2020 ñoo ak ñu yëglikaay yi sunu làmb la ñuy xëy tey dooreetu ko yëglikaay ba nag moom tey ka mu xëy dalal mooy Sitor Ndour mi nga xam ne moo doon arbitre bi nga xam ne dañ koo rajee ak ña mu àndaloon ñenn ña ñu dàq leen Sitor nag moom daa mel ni tey moom xëy na ngar daajoo yëglikaay biir sunu làmb daal wax fa lu leer nañ wala boog wax fa la mu sentir wala la mu gis ne mbir ya noonu la war a demee Alioune Sarr daal la xëy tey dal ci kawam ba mu yëg ko nee na ko daal lem ba des daal yow docteur Alioune Sarr jàppal fi mu nekk nii moom dem kese nga war a def lamb ji moom nekkul na yow yaa ko mën a tee doxal loolu mooy wax ki nga xam ne nii moom moo di Sitor Ndour tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ne na quitté daal maanaam mai bi dëbësam te dem lool la war a def ne na ko yaxi jubu war waxee woon daal ne na fi mu nekk nii loolu dong moo ci des ne na nag Alioune lenn mooy sikkam bokk na ca bokk Sitor ay wax de ne na maanaam daal dafa bëgg di def lépp maanaam daal jël pépp jël péfét maanaam daal li kenn war a def wala boog lu mbooloo war a def moom mu taxaw di ko defal boppam yemuñu ca pétition boo xam ne 5000 personnes daal lañ cay woo fi mu nekk nii ngir réclamer dem ak Alioune ñu nga ca Matar Ba itam mu mel ni interpellé nañ ko ca mbir mooma fi mu nekk nii nag lañ ko wax daal wala la Sitor wax moom li am ba des nee na Alioune Sarr ni ko arrêté ministériel fale woon ñoom tamit noonu lañ leen ci nommé kon nekkul ne moom moo leen di dàq nee daal Alioune Sarr wala boog Sitor wax de nee na Alioune Sarr moom dictature daal la Sitor wax ne bi nga xam xëy na tey ñëwati ci yëglikaay bi di sunu làmb muy Lac de Guiers numéro 2 Lac nag moom la mu xëy di waxati daal ay adversaire am lay wax maanaam daal Eumeu seen bu si nga daal la jàpp ne ñoom ñaar bëre mënta ñàkk seen diggante waaye yemu ca wala boog tafaatin bu taq ci rib bu bawal laaj na tamit kooku adversaire am la jàpp na ne ñoom ñaar faw daal ñu laale laale daal du ma a ñàkk ci diggante boobu nga xam ne nii ca la ñun keneen koo xam ne nii moom mu ngay waaje ab laaleem wala boog jël na avance muy Gris doo ak la nga xam ne nii moo koy xaar ci Balla Gaye moom nga xam ne moom la war a jànk jànkaar lool te Balla teglante ay ndam moom Gris Bordeaux bam ba tey ci sunu lamb ci gëstoo Boubacar Niang wala lu mu noondil tey mu mel ni ki nag combat bi est ce que ay jafe-jafe naru caa am wala problème ndax li am ba des mooy Balla gay 2 mi mu war a bëreel ka ba muy bëre ak Modou Lo ka ko préparé woon du kenn kurul dul coach sab Gris Bordeaux wala directeur technique am di Tafa Gueye yëglikaay bi nee na daal Tafa Gueye préparé mu Balla Gaye mu daan Modou loo àndoon ka xaritam ba ñuy wax Moussa Fall moo tax yëglikaay bi ne day mbaa problème du am ndax nag mbir ba mu amee ba jàll ay coow juddu woon na ca tey itam daal li am ba des moom gis Tafa Gueye wala boog xool dafa Gueye fan lay taxaw ci diggante Balla ak Giri fi mu nekk nii daal loolu mooy wax ji ay xale ngi yoo xam ne nii moom seenu combat ñu ngi koy xaar muy Tigre Junior ak booy jaxaw maanaam daal combat la boo xam ne day yëglikaay bi jàpp na ne bu am dansé lay doon dana fay jóge nag dox dem ba fa nga xam ne moo di ca journal bii nga xam ne moo di record record ba tey ca mbirum Gris Bordeaux ca la ñu jëm record nag lam nu xëy wax daal maanaam daa mel ni yoonu couronne ba daal dafa ubbeku ngir Gris Bordeaux yëglikaay baa xëy tey ñëw andil ñu lu mel ni ki noon ka nga xam ne nii moom ab écrim jàppal maanaam daal seeni combat bëriwul trois victoire la ñu def deux défaites maanaam muy écrit ji mbóor yi ba nga xam ne fa la bébé Saloum ne moon maanaam daal boo bëggee dégg-dëgg moom seeni mbir dese naa dox nan ko doon xaare er, beneen écrit ngi ni moom ku ko jiite doomi saalum la ba tey di Mouhamed Ndaw tey Tyson muy bul faale moom nag yëglikaay bi ne na boo bëggee dégg-dégg atum 2015 ba jàpp 2020 daal jàppal 14 combats lañ fi jot a goo def maanaam booba ak léegi ci juróomet maanaam daal bul faale fi mu nekk nii moom bëree da leen xaw a tëj tëj ci tëj yëglikaay bi ñëw na sax jàngat ko jàppal 2015 2016 5 combats benn victoire 4 défaites 2016 2017 4 combats 3 victoires benn défaite 2017 2018 5 combats 2 victoires 3 défaites 2018 2019 combats ko jàpp 2020 bii ne ba tey takkuñu ngeem dugg ci làmb ji mu mel ni kon bul faale moom seeni mbir dox defu ko écrit bu bees ba nga xam ne moom juddu na muy jàmbaar Wrestling Academy ba ca parcelle Papa Sow jiite ko fi nekk nii moom. jàppal yëglikaay bi di record daal nee na li am ba des daal ah ñu nga xëcc ay mbër de di yóbbu ci ba ki nga xam ne ni nag xëcc nañ ko mu fekk leen mooy garga numéro 2 ma nga xam ne moo nekkoon fa nga xam ne moo di dóor dóoraat garga 2 daal dem na ca ñoom Papa Sow fekki leen yëglikaay ba xëy tey ñëw wax nu ko di waajal kombaam nag yëglikaay ba sax mu ngi ñuy xamal ne day boo bëggee dégg-dëgg tey jii yaakaar nañ ne avance am dina génn moom ak Maama Lamine loolu record a xëy wax ñu ko tey itam duñ ca yem de ndax ki nga xam ne moo di góor a sok itam daa mel ni moom itam xalaat nañ mu dem ci écrit booba Franc itam waxi noppi ndax Franc sax moom yëgle ka ne na combat bi mu mujj a ba mu koy bëre ka waa jàmbaar ñoo ko indi woon moom Franc nag combat ba mu war a bëre moom jàppal yëglekaay bi record xamal nañu ne daal drapeau ba docteur Macoumba Diouf moom la ñu paree ne bés booba la moom daal la waa Vox Arena tànn ne ko yaay sunu parrain meeru lat mbénga ba daal moom la ñu jox booba bés yàgg maar mu mel ni kii nag yàgg moom loo waxadi waxadi bu sa waay amee bés nga am bés docteur Macoumba Diouf ku ko paree ne man nga pare ne ndax nag sama bopp ma la gënal du bañ naa la te maar ku la safooti nga faale ko docteur moom sama xarit la sama mag la kon bés boobu na ko Sénégal gépp waajal waxuma sax waa Leewtoo waaye kuy sénégalais docteur ma Diouf meeru Lat Mbengue na nga waajal bés boobu ndax moom nag kilifa la goo xam ne bëriwuli wax te bu jëf jotee dana jëf du saaga du siiwalaate du def lu bon du ko wax lii man maa la ko wax bind ko bu la neexee. waa Leewtoo TV ñu leen nuyu leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue la l'arène bi ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. <laughs> waaw man lu ma dal. yow kay am na lu la jot sama yaakaar say naga naan sigut wala da am problème mu xarum tabaski mee matagul mais loolu du problème dinañ ko lijjanti bu soobee suñu borom maa ngi lay bëgg bu baax a baax di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp. Mm-hmm. waaw waaw Babacar nu commencé na ak Sitor Sitor na dafa xëy na dala ki nga xam ne moo nekkoon ancien président la commission des arbitres muy Sitor Ndour Sitor mhm. Ndour na dafa xëy nag nag di clash ki nga xam ni moom mooy euh, président Alioune Sarr moom nee na comme ni ko ki Yékini waxee rek moom mënatul kon boog dafa war a dem nee na nag euh, place lamb ji g euh, mbër yi nga xam ni am nañ si place nee ñu nag am na pétition 500 personnes yoo xam ne ni ngi ni ngi ni ngi wax ni na Alioune na fi jóge Babacar waaw 500 sax wala 5000 kay daa mel ni. 5000. <laughs> waaw moom kay daa ni romb nañ 500. 5000 waaye loo ci mën a dégg daal Sitor tey xëy na ngar daa jox sunu lamb. ñu dalal ko fa mu waxtaan lu yaatoo yaato wax ji nag daa mel ni li ci ëpp yëpp docteur Alioune Sarr la ko jëmale. Mm. ci waaram li mu jàpp ne yamukaay bi yegsi na ca. maanaam mënatula la dem kon daa war a dem dafa war a bàyyi jox keneen yaa ngi dégg jàpp na tamit ne doxalinam doxalin koo xam ne ni utalewu ko sax ak dictature loolu ba tey waxi sitoor la ak pétition boo xam ne 5000 personnes ñu ngi ci ngir lan ngir départ Alioune Sarr loolu lépp nag boo ko gisee li ma lay wax la rek maanaam ay nit bu ñu bokkee benn mbir mm. maanaam di doxal benn affaire dañoo war di waxtaan à temps mm. di xool li nga xam ne ni mooy tax situation yi di régler di nekk ci ay normes bu fekkente ne waxtaan nag du bëri la plupart des fois yu mel ni mën naam xol jóg ñàkk déggoo am waxante daal di am te pour man loolu yëpp xaju fi parce que pour man Dawdo alin Sarr mi nga xam ne moom moo jiite kilifa la ñi mu jot tamit ay kilifa lañ ndax Sitor mi ah tamit ku ne xam na ne responsable la taxawaayam ci li muy def ak yooyu ba pare nekk jàngalekat kon kooku responsable la ak ña nga xam ne ñoom la ko seqal ñëpp li ci des nag mooy que ni olof ne na bu ndox turoo an baax a fa des ñu ne nañu rootiwaat waxoon naa la ko dem kon dañuy rootiwaat rooti bi nag mooy ñu toog waxtaan xool li nga xam ne nii moo mën a ne tey tax làmb avancé ñu def ko man nag man Babacar du ma naan Alioune na dem du ma naan na fi toog mais dama naan lii tax làmb ji mën a nekk ci ay normes yi nit ñi soxla yi sénégalais yi soxla wala ñi ëpp li ñu soxla ñu fexe loolu ñu waxtaane ko ci ñi mu concerné yëpp mën naa ko commencé sax ba ci ki jiite réew mi muy le président Macky Sall ndax làmb ji na ko ndax mooy que ni làmb ji am na lu muy def wàllum développement ci réew mi te itam am na fu muy maanaam ñàkk liggéey bi nga xam ne moo am ci dëkk bi kon defe naa mbir la mu nga xam ne ñëpp ci war a toog waxtaan ci ñu xool lu koy doxal euh, waxtaan boobu sax moo tax nag ki nga xam ne mooy ministre Matar Ba moo leen far par arrêté waaw loolu parce que arrêté moo leen fal mm. fal ki nga xam ne mooy docteur Alioune kon ba tey loolu xëy na day nekk boo foo xam ne bu fa duggee day dem ci wàllum voie juridique ak xaw ma nu ñu koy ak yeneen mbir yoo xam ne ni daal su ko roogee ay règlement lay dun ak yooyu loolu nag ñun suñu xam-xam daca mën a sori la cay mën a nekk daal mooy kani li ma la waxoon sànq rek laa lay waxaat muy ministre bi Matar Ba muy Aline Sarr muy ki nga xam ne nii moom mooy ñoom Sitor ak ñi ñu àndal ñoom ñëpp pour man pour man ñun ñëpp ñoo bokk benn bëgg-bëgg bi li ñu war a intéressé daal mooy ñu xool na la ñuy waxtaane pour régler zangal yi li nga xam ne ni moo mën a ne ñu def ko li mënta ne ñu dindi ko teg ko fële <laughs> ñu régler zangal yi waaw les ah, waaw xaw ma angal <laughs> les zangal ah ndey ku ma yàgg naa la ko wax man ja xanaa mu ne man jànguma nasaraan <laughs> <laughs> journal bi tamit ñëwaat laa ko <laughs> journal bi ñëw na ci euh, <laughs> nga xam ni mooy Moustapha Gueye nee nee ñu nag la mën a nekk nag taxawaayam tey jii Balla Gaye nag bi nga xam ni dafa fas yéene bëre ak ki nga xam ne mooy plan muy Gris Bordeaux waaw loolu day bu ñuy laaj lan moo war a nekk taxawaayam xam naa dina doy waar parce que Tafa Gueye moom mooy deuxième tigre de Fass mm. Tafa mooy rakku Mbaye Gueye directeur technique après mu ñëw nekk directeur technique actuellement écurie Gris Bordeaux nekk troisième tigre de Fass nekk leader écurie Fass am combat ak Balla Gaye dafa naa ne Tapha foofu bu ñu xëyee gis ko muy jàppale Gris muy entraîné Gris Bordeaux warata bette kenn lay bette kay ñu gis ko muy entraîné di Balla Gaye ci biir combat te damaa yaakaar ne xanaa loolu est-ce que xelam war na koo xalaat day yónni yàgg ba xam. ah looloo jaral waaw kon nañ ko fa bàyyi nañ ko jox yàgg. waaw Babacar nag ki nga xam nag moom fan yii nag moo xëy nag si euh, journaux yi la daguère bu ginnaaw moo xëy nag dem si euh, ki nga xam ne mooy euh, record te nag ñëw nag ñëwaat na tey si sunu laam nee na daal moom daan mi ngi lim nag ay adversaire nee na Eumeu Sène nag Tapha Tine ku si ñëw rek baax na. waaw moom day li ma la waxoon démb laa lay wax rek digganteem ak tafaa daal 1 plus 1 égale 2 la digganteem ak Eumeu Sène tamit 1 plus 1 égale 2 la rek fu mu ci am day baax. loolu moom lu ama am la waaw ok nee ñi nag record nag suñu jógee suñu lam mi dem si record record nag mi ngi xamal ki nga xam ni mooy Gris Bordeaux nee nag bi muy jàkkaaroo comme que saison prochaine day jàkkaaroo ak ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye nee na nag combat boobu su si génnee génnee direction mooy roi des arènes ba yoonu roi mooy ubbeeku ngir moom bu ci génnee waaw ba tey muy nekk combat boo xam ne mook Balla Gaye daal xam naa ne bu dee da koo gagné moom am na porte yu bare bare yu mu ko mën a ubbil rawate mm. xam la cay xew waaye na Abou Ndour xalaatee noonu ba tax tey mu def loolu maanaam combat la boo xam ne bu ko gañee da koy ubbil yoonu waaye nag ndax dana ko gañe wala du ko gañe loolu ba tey la ma la waxoon rek nan ko joxaat yàgg rek Mm-hmm. Ah. Uh, ki nga xam ne mooy abunu tamit def na benn gëstu bu xaw a yaatu fii nii si écurie Bul Faale bi nga xam ni Tyson moom moo ko nekkoon chef de file bi nee nañu si uh, 5 uh, saisons Tyson daal 14 combats lañu am ak 14 combats lañu am Babacar. waaw ci 5 ans ci juróomi at muy lu doy doy waar Bul Faale ndax Bul Faale bi ko Mohamed Ndao Tyson sancee defe naa ne ak ni mu ñëwee woon ak engouement bi mu ameen ak révolutionné bi mu ñëw révolutionné ko làmb ah vraiment xalaatoon nañ ne moom bis buy bàyyi écrit ba dinañ bis bu demee ba bëreetul ndax womu sa bàyyi écrit ndax écrit bi moom bu ko bàyyee alalam la bàyyi su ko jàppee alalam la jàpp ndax moo ko sanc am ca ay nit ba tey écrit ba euh, euh, egg fi mu yegg ba bokk si écrit yi ñuy limb kon yaakaar naa tey ak li ñu wax nii nekkul loo xam ne nii pour man lu war am la parce que écrit bi nga xam ne dafa bokk bi mu ñëwee marqué na empreinte am kon yaakaar naa moom Tyson am na part responsabilité ci lii pour man yaa ngi dégg war na xoolaat bu baax a baax taxawaayam ak taxawaayu écrit bi ak ñi leen di entraîné ak yu mel ni ki noonu pour que écrit bi mën a bokk di compétir ndax itam toog ay lu war a mat juróomi at bëri woo ci lu dul 14 combats ci écrit bu toll noonu defe naa ne du lu xel mën a nangu quoi kon nañ liggéeyaat bu baax a baax ci loolu mais Babacar li nga xam ne moo dal tamit bul ne mooy écurie Alpouraj moo dal aussi ki nga xam ne mooy écurie euh, Ndakaaru parce que am na ay euh, ténor yoo xam suñu xasee ba bàyyi euh, retraité ñoom seen écurie day dem ba dafay dem ba dee waaw day am ci écrit ah, mais boo xoolee sax la kaada alpulaar ba tey ak la kaada bul faale bokkul ak écurie Ndakaaru parce que écurie Ndakaaru la waaye euh, ko ci écurie loolu Ndakaaru la da fa gis ay xale ay ante fa ak yeneen xale yoo xam ne nii bëri nañu masha Allah yoo xam ne ñu ngi bëri di def seen rôle mais bul faale wala bul faale tamit am na ay mbër mais xëy na combat yi ñu bëriwul ndax mën nañ ne champion bu mag a mag la mm. mais Halpulaar moom boo xoolee sax da nga naan est-ce que mu ba loolu lépp nag pour man li koy waral mooy rek mbir boo koy sanc rek da koy sanc fexe nooy jàngate ba mu nekk loo nga xam ne luy am longévité lay doon. long terme waaw loo xam ne mais loo court terme waaw baaxul daal def ko léegi léegi léegi luy olof naan tooba saxal mbaama sulli yooyu da dul wóor tooba da koy may temps d'accord ah, jeex na. waaw am na solo wolof boobu moom gis na loon waaw euh, Babacar euh, record aussi mi ngi ñuy xamale ki nga xam ne mooy Garga de fekk na ki nga xam ne mooy Papa Sow si écurie bu bees bi Jàmbaar Wrestling Academy. waa loolu du de yaakaar naa ne su amee itam du war a mën a bett kenn ndax li tax ma wax la ko mooy que ni yàgg nañu gis ñooñu ñu am ay rapport yu rafet rafet di seq lu bari ci ay bëre entraîné géej ak yu mel ni kii noonu kon defe naa su Papa Sow sañcee écrit tey ñoom Garga 2 mu xool ba yaakaar ne fa la war a mën a dem ah defe naa tamit mag mu ne sa magum bopp nga bu yaakaare ne foofu la war a mën a gën a yokkee carrière am am na droit dem fa ndax itam nit ku ne li dal sa xel su su magum yàlla am jëmm loolu ngay def bu Garga 2 nag nekk na mbër moo xam ne tey ci làmb moom kenn ko mën a doo ko présenté ndax talaam ak mën a macha allah Mm-hmm. Babacar comme euh, Franc ak Tyson 2 nag am nañu pare bu mag a mag muy euh, docteur Macoumba Diouf euh, sa maire Lac Mbengue Babacar. waaw loolu sa drapeau wala drapeau Leewtoo. <laughs> non sa moom kay sama drapeau lay doon te drapeau Leewtoo lay doon ndax li tax ma wax ko sànq bu déggee xam nga nit ko moom nam la téye rek noonu nga koy jàppee. Mm. parce que maag moom bi ñu xamante matagul fukki at ah. mais wax dëgg yàlla bu fekkee damay wax te yàlla tax rek gis naa ci moom jikko ju nga xam ne jikkooy nit ku baax la parce que li tax mooy xam naa si moom nangu liggéey xeetam ci li ma gis ci moom parce que dafa am situation xam ne tey ku mel ni Babacar bu ci nekkan tey bu ma ci newoon pour ma duggati ak yaay beneen affaire lay doon mën naa aju fii ci taax yi di baagante ay Paris New York Dakar yem fa yaa ngi dégg mais moom yooyu yëpp macha allah am na possibilité yooyu da koy def mais damay gis muy groupé njabootam di ànd ak ñoom di dem dëkkam lat mbenge ba pare nekk meeru dëkk ba waxuma nag ne mu ngay liggéey lat mbenge ndax dëkkuma fa loolu waa dëkk baa ko ma wax te da maandu ci loo xamul mais man li ma séq ak moom entre nit ak nit yaa ngi dégg ak li ma gis si moom wax dëgg yàlla jàpp naa ne kilifa nit ku baal te ku yëg nit la ndax duma ko appel alum ba mu rejeté ko te su ko gisulee wala boobu jox ko sa pare dama rappelé am nañu rapport yoo xam ne daal wax dëgg yàlla sama mag la sama kilifa la may ñaan yàlla daal drapeau boobu ñu yegg ci jàmm bëre ko ci jàmm waa Vox naa tamit di leen wax mention spéciale xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu rawatina ki nga xam ne moom mooy Seck Mamadou Seck ak ki nga xam ne mooy Cheikh Omar ak Diouf mi fi ñëwoon bëri ci démb muy loo xam ne daal macha allah daal yàlla nañ ko fekk taal ko di nuyu tamit soxnaam Louis Senghor maa ngi koy bëgg bu baax a baax loolu am na solo Babacar si kàddu yoon lañ tàggoo di leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay merci nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Astane ne DG Brahma Chéri Khadija Diallo di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ne moom mooy Grand Fall depuis Parcelles Assainies nuyu Abdou Gueye Baye Fall Diamaguène Papa Iste Asek Chéri Khoudia Seck yaa ngi si biir depuis Italie di nuyu ki nga xam ne mooy Daouda aussi depuis Italie di nuyu ki nga xam ne mooy Jibi Bamba suñu Jibi aussi Chéri Ousseyn euh, mi ngi ñuy bëggee depuis Touba ndax nee na temps yi foofu la am chantier ñu ngi koy nuyu di ko ziar Babacar kenn du Jibi Bamba Jibi maa ngi lay bëggee waaw di ko ñaanal jàmm moom tamit kenn du moom parce que dafa ñuy jàppale si lépp lu mu mën a doon des fois mu sol daal lam ñëw ba fii seet suñu kon Jibi Bamba mention spéciale waaw di nuyu waa Touba Mbacké yépp bu ñu nee Touba nag suñu xel du dem ci kenn kurul borom Touba muy al Muntaxa Cheikh Muntaxa Mbacké Mbacke yàlla na fi yàgg te wér lool di ko ñaanal tamit xalifa ba nekk Tiwaawoon muy Serigne Babacar Sy Mansour ka nekk cene ba Njaasaan Medina Baye lew na laayeen ba si jàngu bi yaa ngi dégg di nuy waa laayeen parce que bu ñu nekkee fii Mermoz yaakaar naa ne laayeen a ngi nii di la dégg kon ñoom itam ñu leen di ñaanal jàmm di ñaanal xalifa yi ne ci réew mi yëpp di ñaan Sénégal daal yàlla na fi yàlla saxal jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bàyyiwaat sunu xel ci réew mi nu nekk ak ñi ñu ko bokkal parce que réew mi ñu ñu ko bokkal mooy ay nit ñu yàlla teral te la tax yàlla teral leen dul leen lu dul dañu jël seen lépp jox ko seen borom muy kilifa diine yi moo xam jullit yi la moo xam chrétien yi la ñu gën a wegante waat joxante sutura wormaalante teg ay teggin Sénégal jëm kanam. yàgg maa doo ko nuyu yàgg non yàgg dina am xar Awa Diop tamit Touba Mbacké maa ngi koy nuyu Awa Diop bu Balla Gaye mm. maa ngi koy bëgg bu baax a baax di ko wax mention spéciale moom tamit.